franchement kontaan daal. ah mais Queen doomu Sénégal la te lépp lu mën a jëriñ réewam rek dina ko def te dinaa ci taxaw incha allah. ah loolu. a mhm. un honneur Ablaye Wade nee naa luñ ko tuddee doyul. ñu yokk rek di ko gën a tuddee ndax euh, def na fi lu ko jarit def na fi lu tax ñu war koo mën a tuddee lu nekk ci réew mi. mais Queen comme ni ko waxee woon sa Instagram maanaam euh, baax na si laax bu tàng nu <laughs> loolu. moom wax naa ci ba pare te xam nga nee naa wax moom danga koy waxee fi nga ko war a waxee bu bu bu loolu weesoo rek boo ko waxatee du safee. mais leen bi macha allah kontaan ci rek ndax Sénégal dëkku justice la bëgguñu injustice. boo nekkee ci dëgg tamit nit ñi dañ lay jàppale. comme dax bi léegi comme dax bi bu mu paree ba léegi dégg nga dégg nga ah yow tamit nag loolu c'est privé lu tax ma la koy wax. <laughs> waaw li may li ah, <laughs> ah, ko toog. Sadio sama mbokk la donc euh, dañuy déggoo souvent donc. Euh, di ngeen déggoo mais bu match bi jeexee la ngeen wax. ah de loolu moo ko wax nag. sëñ ma nag vraiment nag doy na. <laughs>